waaw sëriñ Mbuub ak man nag duñu yàgg euh, te lii di di bësu fàttaliku ndax bi muy door CCBM booba maa ngi doon njiit ci ay banque te ñu ñu ànd liggéey ñu ànd liggéey te ca booba ma gisoon ci moom euh, xarañ bu bu mat sëkk ak vision loolu moo mënoon a indi te néew na ci senegal euh, ñu ñu ko ñu ñu ko fiy gis koo xam ne xale la doon na ci waajuram ndax kat baara baara boobu liggéey na liggéey boobu am maanaam waaye mu màggal ko suqali ko yóbbu ko ci yeneen dimension te loolu taxawul ndax ca booba maa ngi fàttaliku bi ma daan dem di ko seeti ji di seeti usine am li ma fa daan gis mooy montage split ak climatiseur tey moom bi ma fi ñëwee ñu may won ay ay 40 tonnes naan na fii lañ ko defee kon loolu seddal na xol. ndax nag bu ñu toogee ba war a wax lu jëm ci émergence émergence du yëfu benn fan te émergence foo ko gis ci àdduna da ngay am ay da ngay gis ay ay dañ daan gis ay entreprise yu ndaw secteur informel artisanat ñuy màgg di màgg ñu koy donnante seen biir ci biir famille ba mu mujjee noon ay mu mujjee noonu ay doon ay ay entreprise yu mag a mag a mag ay Samsung ak yooyu yëpp foofu la ñu jàpp kon euh, amoon naa mbégte tey ñëw gis lii ba pare nag fekkee waxtaan boo xam ne amoon na solo lool ba pare ñi ko yelloo doon ay boromu xam-xam yu ma sëkk euh, lu jëm ci naka la ñu mën a def ba wàññi accident yi ci tali Sénégal yi wàññi bakken yi rot ci tali Sénégal ci yoon waruñu taxawal conseil interministériel te oowuñu ñu mel ni Serigne Mbuub ñu toog wax seen xalaat ànd ceeg seen technicien man maa ngi fàttaliku bi ma daan taxawal ay conseil interministériel mais ñi fa daan jiitu mooy ñi nga xam ne ñi ñooy liggéey ci mbir mi gën a xam-xam gën a am xam-xam sax administration ci li ñuy liggéey kon am na solo balaa sax ñu naan bokk nañu ci liy indi solution ñu toog bokk ci ñi xalaatal solution solution bu amee ba noppi ñu ne yoon bii la ñu war a tegu bu boobaa doo ci mën a génnee concessionnaire doo ci mën a génnee concessionnaire boo xam ne bii te te moom laa gis tey ci ci ci ci panel bi concessionnaire boo xam ne itam ay cadre yu mat sëkk yoo xam ne liggéey nañu ci entreprise internationale ñëw yore xam-xam bu am solo ñu war a wax itam seen xalaat ci li nga xam ne lii jot nañ ko dund feneen jot nañ ko dund itam fii ci Sénégal te xam nag lu ñu fan la ñu war a jaar ba mën a wàññi accident yi ak euh, bakkan yi rot ci ci tali yi.